abonnez-vous à la chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes Ça de de FTTV Sénégal le président Macky Sall qui a fi coup d'état constitutionnel il mel daal di de sabab ñu ci gouvernement bi a de de di de démission C'est kookee nag lu sabab mu daal di jébbal kii di président Macky Sall ab lettre de démission mun nañoo wax ko ne ab conflit d'intérêt la ndax kookee frère bii di Cheikh Tidiane Koulibaly moom mooy magistrat bu bokk ci sept sages yi te kookee lañ wax ko ne moom la kii di Amadou Ba corrompre ginnaaw ba ñuy invalider candidature kii di Karim Wade te loolee tamit moom moo sabab kii di président Macky Sall daal di annuler élection yi ci réew mi di Sénégal ginnaaw kookee kii di Eva Marie Coll bokkoon ci gouvernement bi ginnaaw ba kiir président Macky Sall jëlee ndogal ne daa dàq élection yi ci réew mi di Sénégal kookee tamit daal na koy jébbal ab lettre de démission daal di koy xamal que ne réewu Sénégal réewu démocratie la te jëfam joojee mu amal dafa anti démocratique ginnaaw li ni mel ministre bii di Samba si ak ministre bii di Omar Samb ak leaderu parti bi ñu dippee CDS te ñooñee daal di bokk ci coalition bii di benn Bokk Yaakaar ñooñee ñëpp daal di nañuy bind ab bataaxal daal di xamal kii président Macky Sall que ne loolee mu def te mu dàq élection yi ci réew mii di Sénégal loolee dafa antidémocratique ñoom ànd nañu ci tey ànd ci suba te ñoo ngi wax kii président Macky Sall mu daal di respecter calendrier électoral bu amoon ci réew mii di Sénégal daal di organiser élection yi le 25 février 2024 bi ñu jëm. ginnaaw li ni mel kii di Diop si ne. tiiñal buñ koy tiiñal ne mom mo sàkk ñu daal di yokk mandaaw président Macky Sall lu tollok at ne l'olé du lu wër ne lu leer ba am moy que né ki président Macky Sall ba muy jël ndogal ne day dakh élection yi ci réew mi di Sénégal ne mom rek mom mo jël ndogal lolé ne li ni mel bu amé du responsabilité ben député ou responsabilité ki président Macky Sall la. Abonnez-vous ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa su ne ngeen